Euh, niñ koy baaxoo di defee rek dañuy jël ay tomb di ko waxtaanee muy doon njariñ ci ñun ñi nga xam dañ koy wax ba noppi jëm ci ñu koy déglu moo tax ñu jëloon yenn ci ay asmaullahi alxusna yi mooy yenn ci ay tur yàlla doon ko waxtaanee hmm, jëloon nañ fi bismillah kon jëloon nañu fi ismu zat mooy tegtale delluwaay gi jëm ci kenn ci yàlla képp la jëm mu jëloon ko nag waxtaanee ko indi ci ay tomb yu bari ay leeral beneen bi ci toppaat ñu jëlaat arrahman jël arrahim kon tey ñu fas ci malik nag dafa bokk ci tur yàlla yi nga xam ne mënees na ko askanale nit te du wàññi dara yàlla dafa am tur yoo xam ne dañ koy delloo ci nit ci misaal Abdul Aziz kon mën ngaa jël ne jaam bii kat jaamuk yàlla mi boroom ñeewante gi borom yërmande ji al aziz aji tedd ji al aziz abdul qafuur yooyu mën nga koo jël dàkkantelee ko nit xam nga kenn du jël aziz rek nii xëy nit ñi ngi koy woy nit waaye loolu njuumte la rahman kenn ñu ngi koy woy ay nit waaye kenn war ko wax abdurahman lañ la war di wax nga gëm ne kii jaamu aj yërëm a jële ji almalikal mulki mooy buurug buur ji moom mooy almalikal mulki yàlla mooy buuru képp koo xam ni ak buur nga turoo rek <coughs> ci yàlla rek la mën a dellu mënta dellu ci keneen nag mooy malikal mulki mooy buurug buur yi almalik nag mën nga ne ah kii de diw sàngam mooy buuru waa dëkk waa dëkk ba nga ne maalikal mulki moo ne ko kat mooy buuru buur ñi moo tax lam ci waxoon xulillahuma maalikal mulki tuutil mulka man tasha mooy nangeen ngeen bàyyi xelle nguur yàlla moo koy joxe moom mu yor nguur di ko jox kum ko neex waaye nag luñ ci teg wa tanziul <laughs> mooy nguur su la ko yàlla joxe ba na bu koy bu koy jël da koy nocc moo tax nag nguur ku ko yor ba dem bay dem du mën a neex ci yow parce que dangaa yoroon lu neex ñu nocc ko ci yow yàlla képp mooy yor ak nguur te kenn du ko nocc ci moom yàlla képp yor ak nguur te kenn du ko nett ci moom qul illahuma malikal mulki tutil mulku man tasa wa tanziul mulka mimman tasa wa tuizzu man tasa wa tuddilu man tasa biyadikal xayri innaka ala kulli shay'in qadir kon lim la njëkk a wax dañ ne qul illahuma na ngeen xam ne yàlla mooy maalikal mulki mooy borom buuru buur yëpp lu mu ci wax lu ñu ci teg mu ne tuutil mulka man tashaaw mooy yàlla kat ñi nga xam ne dañoo yor nguur yàllaa leen ko jox yu coobareem waaye lu ñu ci teg wa tanziul mulka man tashaa mooy bu ëllëgee bu la ko joxee ba noppi ne da koy waa da koy nanguwaat say loxo jox keneen wa tu'izzu man tasa wa tuzillu man tasa bi yadikal xayri innaka ala kulli shay'in qadir kon loo ci mën a déggee mooy bu nee la yaay buurub sàngam yëgal yaay buur ba ci jamono jooju nag di àtte di doxalee ñi neex ak ñum neexut waaye nag yàlla nee na boo ëllëgee dama koy nocc say loxo te doo ci man dara moo tax nguur kenn du ko yor bay dem rek xool ba neex ndax lu ko war dañoo nocc nocc la yàlla wax nocc wa tanziul mulka mimman tasha'u <laughs> moy suma la koy joxe ba nag koy jëlaat koy rocc ndax soko ko du gaaw dañ mo war Afrique seen rew yu bare bare am ay coup d'etat ndax lako waral nguur gi day neex nek ci dekk ñu mat ay fanwer million nit yow lo wax mu neex day am mu naqari day am lo ne du am mu neex mu naqari du am lolou bu la yalla joxe te istijraaj nekkut ci yow ak jayu pour nga tek ci manu day jafe moo tax ñu bëri président yi Afrique yi bëri dañoo ne al istijraaj mooy dañoo dem ba ànd ci njayu al malik nag bu ko waxee mooy ki nga xam ne mooy dogal di àtte ci lu neex nit ñi ak ci lu naqar nit ñi bu dee président nga nag malik nga mooy muluk mooy yow mulku nga yaay nguur gi yaayur nguur gi à part nan la ci des say ndaw lañ ci misaal wasirul wasaraa yi ñu ne ah kii mooy premier ministre kii kat moo jiite ministre yëpp comme président ginnaaw bi jiitee ñëpp ci biir am na ñu jiite waat ndax ki jiite ministre yëpp tamit yégal ni lu mu bëgg ci beneen fonction boobu tamit kooku da koy def ci moo xam mooy lu jaadu wala ci lu jaaduwul li ëpp ci nit ñi ki la jiite li mu bëgg bu jaadoo bu jaadu yëpp bu la bu la santee da koy def ñenn ci nit ñi ngay dénk dara moo xam ne li nga bëgg jaadul mu bàyyi ko kon wasiirul wasaraa ministre yi moom mooy premier ministre waaye ki ko faw ko nag mooy malik mooy ki nga xam ne mooy jiite malikal mulki nag mooy buurug buur yi kon kooku lañ fas yéene waxtaan malik baat la boo am solo di ko sikar di ko doxal moo tax suñu borom day wax ni wat tabaamu ma tatlu sayatina ala mulki suleymaan kon seytaane yi dañoo topp ci nguurug sulaiman, di yàq di indi ay jafe-jafe waaye nag wa maa kafara suleymaan walaakina shayaatiin kafaru moo yuallimuuna naasa sixra kon ginnaaw bi nga xam ne suleymaan weddit waaye suleymaan xam na yàlla mooy kenn waaye seytaane yi ñoo ñëw di jàngal nit ñi ak njabar pour jaxase li nga xam ni mooy nguuram waaye wa maa unzila alal malakayni bi baabila haarut wa maarut kon yàlla xamal leen li ñu war a xamal nit ñi ñoom nag ñu nekk ak njabar kon dafay yàgg depuis ci yent yàlla suleymaan ba léegi lu fi yàgg la def na ay ay siècle moo tax mu waxaat ni alam ndax alam taalam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir alam taalam ndax xamoo leen ni lu ngeen xamut mu ne yàlla lu mu wax mu ne lahu mulku samawati wal ardi waaw wa ma lakum min dunillahi la wax ne min waliyyin wala nasir ndax da ngeen yëgut ndax da ngeen xamut ne kenn moo am sañ-sañ di doxal àddina ak àllaaxira te lim bëgg a doxal kenn du ko dindi ñu ne mooy kan mooy yàlla te yàlla moom lim dogal kenn mënu koo dindi min waliyim wala nasir amut kenn ku mën a méngoo ay mbiri ñëpp ak mën a dimbale ñëpp àddina ak àllaaxira ku dul yàlla keneen kuñ ko wax dañ lay jooy rek waaye xam nga ne nekku ci yow moo tax dañ leen wax ne ndax da ngeen yëg ne xamoo leen ne yàlla mooy buuru àddina ak àllaaxira almalik nag mooy ki nga xam ne almaliki yow mi diini ci misaal mooy koo xam ne bu bis pénc bu ëllëgee bu ñépp faatoo yàlla dina leen teg ci barab atte leen lijjanti seen ay mbir ci li nga xam ne ci lañ nekkoon ci li yàlla gërëm ak ci liñ nekkoon ci lu yàlla gërëmut moo tax bu naan maaliki yow mi diini mooy bu ëllëgee bis boobee kenn na fay dogal kenn na fay atte mu yàlla Euh, turam boobu nag tur la ci tur yi am solo walilay asmaul xusna fad'u biha kon yàlla am na ay tur yoo xam ne danga ko cee war a woo qul udullah aw udu rahman ayyamma tad'u falahul asmaul xusna kon bu leen neexee ne allah bu leen neexee ne rahman kon yàlla am na ay tur tur yooyu yëpp koo ci woo di ko ci ñaan leen ko ci ñaan mën na la ko defal ndax defal gim la koy defal du ko wàññi dara waaye nag moom mooy ganiyun ani nafsihi yàlla ku doylu ci boppam la aajowul kenn di ko jàppale mbaa di ko dimbali koo fi gis rek des na ko jàppale walla des na ko dimbali waaye yàlla képp mooy buur boo xam ne soxlawul ku ko jàppale soxlawul ku ko dimbali ci misaal li ma waxoon sànq mooy euh, li nga xam ne mooy président am na wasiirul wasaraay am na premier ministre premier ministre boobu nag moo nekk koo xam ne dafay ñëw pour régler li nga xam ne président mënu ko régler moo tax loolu lépp booy xool yàlla bëgg organiser àddina moo tax lu ci nekk mu am ku mu ko dénk ci misaal euh, ginnaaw bi nu yàlla bindee ba noppi euh, dafa dafa fexe ba organiser mbir yi ci misaal mu ne taw bi mu dénk ko benn malaaka bi ñuy wax Mikaayil nga xam ne lépp luy wàllu ndox yàlla dañu ko buñ àggee ca daleb sàngam bi sàngam tàmbaleel di taw moo la joxe ndigal na nga départ tee nag lool mooy àpp bi ah ñu ne malaakal mawti yàlla ne ah yow mi nga xam ne yaa yor ruu yi di faagaagal képp ku ci nekk ab turam a ngi nii bis sàngam lay juddu bi sàngam lay faatu barab sàngam lay faatu waaye nag balaa faatu maa lay jox ndigal nga jëli ko kon lool it da ci am solo mooy xam na ni lépp mën na ko doxal mooy peeg na ko peeg na lépp inna laa ala kulli shay'in qadir yàlla attan na lépp mën na ko waaye da koo jox ay nit kon boo déggee ñu ne premier ministre loolu ji yàgg na doon ni booy xool jibril mooy jiite malaaka yëpp fooy dégg malaaka rek malaaka yëpp jibril moo leen jiite ndax lu ko waral mooy ku ci nekk yàlla am na fu la teg waaye daf lay booleek jibril mu am ay liggéey yoo xam ne moom la koy liggéeyoo yàlla di ko jaarale ci moom ci misaal képp yenente bu ñu yónni ab mursal wala an nabiyu yàlla jibril la yebal ci yow mu lay xamal di la leeral mbir yi bu joxe ndigal jotee nag yàlla ne ah jibril demal nga ne sama jaam bi jox naa ko ndigal ah, mën naa woote mën naa tàmbalee def daawa moo tax foofu danga fay jàngatee la am solo mooy baatu daawa lu fi yàgg la mooy woo nit ñi ñu dëgmal lu baax xëy na nag léegi jamono moo yàqu ba ñenn ñi jël ko askanalee ko seen bopp ñoom dañuy nekk ay daa ba nekk nekk ay murashadit murashadit nag baaxut mooy taral mbir yi lool yére ñëpp safara ndax ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wa maw'izati hasanat wa jaadilhum billati hiya ahsan loolu alquran wax boo bëggee woote ci lu baax dangay am ay teggin ba noppi di rafetal li jëmale ci ñi ngay woo waaye koy woo ba noppi ne ko yow jaru ngay ñëw ndax fu ma la waajal mooy yow dangaa war a dem safara jënd nga sa ticket safara kooku mëntoo ko mu dikk ndax comme nga xam na ci lu bon lay dee day daal di préparer pour dee ci lu bon moo tax euh, anam boobu ñu bëri nga koy def fekk ñu ngi def njuumte kon nit ki soo ko bëggee jàppale doo ko dëxal ci dëxalin boo xam ne da koy tax a tiit wala da koy taxa a ragal kon loolu it lu mat di bàyyi xel la baax a baax kon bu ngeen déggee ñi waxtaanee cay turu malikal mulki dafa nekk tur woo xam ne ci sifaatullahi taala yi la bokk moo tax nit ku ci nekk rek nga war cee bàyyi xel bu baax xam ne malikal mulki mooy buurub buur ñépp moom kese mooy dogal mooy atte mooy def mooy dindi ci bis bo xamne ne kenn mënta def kenn mënta dindi ala kulli halin kon lolu mo lañ fassiyene waxtane kon kon e, mbokki al malik nak day tektale bour motax ku bëgg a yëkkatiku boo dee sikkar yaa maalikal mulki nga diko ko lolit ko xamne da nga ne bëgg yëkëti ko ci misal man nga diko sikar bo nexé boo ko ci kari adatu quatre-vingt-dix moo jàpp al ndax booy xool mim quarante la laam trente kaab di vingt boo ko boolee quatre-vingt-dix lay doon moo tax lool it ñu fas yéene ñëw ci tomb yi euh, yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ak bëgg dimbali jaam yi ak bëgg leen a ak bëgg leen a bàyyiloo xel moo tax wàtt ay turam yu bari indi téeméeri tur yu manqué benn tur kum ko xamulul nag mën nga koo bañ a xam yenn saa yi tamit nga dégg nit ku dëgër fit benn waaye bu dëgër fit mel ni man nag ñëw ne téeméeri tur bi yàlla xamal na ko moo tax dañuy wax ne nit ñi mën nga leen a nax waaye yàlla mënoo ko nax moo nax sa boppam fala tuzakku anfusakum huwa a'lam bi man ittaqa bul nekk di sellal sa bopp te fekk na xam nga ni ragaloo yàlla te yàlla la gën a xam ne moom ragaloo ko moo tax nag ni nax nit ñi moo gën a yomb nax ndax sa bopp mënoo ko nax balil insaana ala nafsihi bashira ku nekk bu la nit ñi dee jay ci xam-xam ak njubug ragal yàlla yow xam nga ni boo ju boo jubee xam nga boo jubut xam nga moo tax 1947 ku ko liggéey yaa malikal mulki nga bëgg rafa mooy yëkkatiku ala kulli halin lolit yalla mën na la defal ak yëkkatu kep ko xam nga bëgg nit ñi fonk la nit ñi fonk la fo dem ñu jox la cër ngay jël sa tour ak turu sa yaay ak sa turu wajur wu gor nga boole sa turi yi ak tur yi ak sante yëpp ngay boole boko boole nga adat ko mu jox la ben lim nga dolli ci 5995 nga sikar ko ya malikal mulki ya malikal mulki nga di ci am tewlu xol gu bax ak tewlu gu yéene goo xam ne dangay teewlu wàll yàlla sa borom subhanahu wa taala xamne moy borom nguur li ngay sakku mom moko ko yor li ngay bëgg mom moko am ta mom kesse ko mën joxe lolu ku way ku ko deglu man nga ci baye xel bu baakha baakha baakha Euh, beneen bi ci toppaat koo xam ne dangaa nekk ci barab di liggéey dangaa nekk ci barab ndax bari na ni day nekk ci barab di liggéey bëgg faa sax bëgg faa yàgg ay nit di ko yàqal di ko gàllankoor ba am tiitaange ba jàpp ne barab bii daal bu lii sak bu lii dakkut daal dañ ko fa jëlee loolu maa ngi lay jox secret bu am solo hmm, secret bu am solo laa lay jox nga sikkar ko secret bi ngay sikkar loolu nag yomb na juróom-ñaari fan doo ko liggéey fekk nga def saraxu tàndarma juróom-ñaari kilo chaque jour boo sikkaree ba xëy bat seet nga saraxa kilo tàndarma ba man juróom-ñaari fan loolu moom doo ko def lu dul mbir mi nga bëgg ci barab boobu danga ko am moo tax loolu loo koy liggéey dangay fexe ba xam tur ki fa bëgg a jëlee nga boole ko sa tur ak sa tur yaay lim bi mu la jox nga sikkar ko ya malikal mulki yow buru buru ñep ne ko a ah, barab sangam kat dama fay liggéey bëgg dafa suturlu bëgg lu ma fa am pour teral sama bop teral sun ay mbokk diw sàngam bëgg ma faa jëlee te li tax bu ma faa jëlee amul benn firnde ma ngi lay ñaan jëlee gi ma bëgg a yalla nga ko soppi bama nekkat ca barab ba lolit kep ku ko saxal di sikar ala kulli halin amul sik sakane bara bob do fa jóge te la nga bëgg amoko yaay dem ba doyal nak eh, jóge fa motax lolit ku ko man man nako ko def eh, kon koku moy joxe nguur lol ngay wut koku mom moko ko am moo la ko mën jox moy yalla yalla mom nak lepp lu koy way di laaj jappal ni mu ngi ko yor ci barab sabab bo def pour di bëgg lolou yàlla moom dana ko sottal asbaab nag lañ wax waxun nag tëdd nalaw ñu bari dañuy tëdd nalaw di bëgg li ñu bëgg bëgg muy sotti loolu alaa kulli xaalin danay faral di am ci ñenn ci mbokk yi te loolu day xamle ne loolu ku ko def dangay nax sa bopp rek dangay nax sa bopp eh, beneen bi ci toppaat walillaahi mulku samaawaati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir boobu it aay la euh, moom it koo xam ne euh, dafa am ay nit ñoo xam ne dañ lay mbugal bëgg laa fitnaal ay nit ay noon ci misaal fexeel nga sikkar yaa maalikal mulki danga koy sikkar ci adabu cinq mille neuf cent quatre mooy lu jàpp limub mbindeef yépp mooy ñëpp ci biir ñépp a ci biir kenn desut 5995 mooy xadadut nit ñi nga dugal ko ci biir di ko sikar lool it ku koy sikar tur ay nit ñu la bëgg a faagaagal walla bëgg laa indil ay jafe-jafe loolu yàlla mën naa dogal ñooñu seeni jafe-jafe ak seeni xat-xat yi la bëgg yàqal mën nga cee mucc bu baax loolu leer na ci mbir yi nga xam ne ku bëgg suñ borom dimbali la yëkkati la rek mën nga koo def incha allah rabbi euh, beneen bi ci toppaat yàlla suñ borom subhaanahu wa taala ay mbiram daa yaatu ay mbiram yaatu gi mu yaatu nag ku ko bëgg am wala nga bëgg koo suñ borom jox la ko da ngay jaar fi nga xam ne fa la koy mayee tëdd na la nag mayewu dara tëdd na la moom mayewu dara ku ne xam ne xar mbaa béy mbaa ginaar bu timis jotee dañuy tëdd nelaw ndax dañuy teel a yeewu pour wut luñ lekk kon képp koo xam ne dangaa bëgg di am di bëgg di am dangaa bëgg am mbir moo xam yaa ngi koy sàkku nga bëgg yàlla jox la ko fexeel di sikkar yaa malikal mulki waxtu julli wu jeex yaa maalikal mulki waxtu julli wu jeex nga di ko sikkar 66 fois loolu it day tax li ngay bëgg moo xam ci barab wala ci kër yàlla dana la ko yombal te doo ci am benn jafe-jafe ndax loolu daa bokk ci teraanga yi nga xam ne yàlla du koy defar kon même koo xam ne dangay sikkar maaliki yow mi diini quatre-vingt-dix fois chaque suba teel loolu it lépp looy lijjanti yàlla dina ko sottal maaliki yow mi diini yow buurub bis ba nga xam ne yaa fay àtte yow buru bis bi nga xamne ne yaay lijeenti nit ñi ci bis ken xamne kenn mun leen lijeenti lool ku ko saxal di ko kër ala kulli halin mbir mo bëgg wala mbir mo xamne yang koy sakku yalla mën na la ko jappandal ndax yalla sun borom lim yor minde fi kep la ko fi minde fi yep la fi denjal bu kenn japp ne li yalla yor da am ñum ko fi bayil am ñum koy jox ñum koy xañ déedéet mom euh ñak ak ñak xam la waaye ku xam ku dégg danga xam ne yàlla lim yor yàlla jaamami képp la ko dencal képp koo xam ne jaar nga fi nga war a jaar di sàkku li ngay sàkku yàlla da koy sottal yàlla da koy sottal loolu bi biti la fanaan mooy li ngay bëgg noonu lu mën a nekk la yàlla kese moo ko yor yàlla kese moo ko mën a lijjanti loolu it mbir la moo xam ne mbir mu mat a bàyyi xel la baax a baax kon yàlla am na ay tur yu bari yu rafet yoo xam ne lu ko ci waay ñaan lu ci waay bëgg mu jox la ko mën na la koo jox mën na la ko jox ci anam boo xam ne day gën ci yow day jàppandi te doo ci am benn daan ndax am am niñ ko doon waxtaanee ci waxtaan yi jàll am am yomb looy am am bu sell moo jafe ala kulli xaalin kon maalikal mulki al mënees na ko askanelee doomu aadama waaye jëf ji xaqiqatan mooy di dogal di àttee ci anam boo xam ne kenn du bañ kenn du sañ a bañ te ñëppay d'accord yàlla képp ko man fi président lu muy am am doole premier ministre lu muy am am doole danay dugg ci at atte yoo xam ne am na du d'accord añ maa wax ko ko wala ñàkk ko wax waaye yàlla képp mooy dogal di àtte di def di dindi di joxe di xañe te kenn du saña wax kenn du saña nga te lim bëgg lay ñëpp di def te te du ci am benn problème kon loolu kenn moo ko mën almaalikal mulki mooy ki nga xam ne mooy buur buur yi ko fon koo fi dégg buur rek mooy yàlla lahul mulku mooy borom muur kon tur woowu turu am njariñ la moo tax ay yoon ay yoon baat bi ñëw na ci alquran ci ay ayat yu différent ak barab yu différent motax nañ xam yalla sun borom lim yor jaam yee ko mom waye nak ku ci nek ci anam bi nga koy sàkkoo la la koy joxe waye yalla kenn tëdd na la rek yalla fekk la fofu di la ko jox kon yalla momu mo bëgg jaam bi di sabablu mbaka bu ko defé la ngay la ngay sak mu jox la ko la nga bëgg li nga ko yalla dina la ko yombal motax rabbi inni laa am amliku illaa nafsi wa aqi faqruq baynana wa bayna qawmina alfasiqin kon yàlla mi nga xam ne yow yaa moom sama bopp moom ma moom keneen yàlla nga leeral yàlla nga teqale diggante ñi nga xam duna jub ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay caaxaan kon loolu day wane ne kenn mënut dogal ku yàlla ngeen xam ne ab dogal akub àtte akub def ak dindi kenn kese moo am kàttan bi lool mën koo def te kenn du ci wax moo tax day wax ni alam taalam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuazibu man yasha wa yaghfir liman yasha wallahu ala kulli shayin qadir kon xam leen ne yëg leen ne yàlla mi nga xam ne mooy buur ak asamaan asamaan lépp lu fa nekk di dox yàlla kay joxe ndigal ñu doxal ko te kenn sañ ta def dara lu yàlla da koy yëg waaye na ngeen xam ne kaw suuf tamit lépp lu fi am mu neex mu naqari xam leen ne yàlla moo yor ndigal li di ko doxal te kenn sañu fay doxal dara lu dut yàlla dalaa jox ndigal nga defal ko kon loo ci mën a déggee mooy ku naan la yaay maalikal mulki ku dul yàlla yëgal nañ lay ndax li xaalin euh, loolu euh, tomb bi loolu moo ko taxoon jóg muy waxtaanee yàlla turam bii di maalikal mulki moom mi nga xam ne mooy buuru buur ñëpp te bu ëllëgee moom kese mooy dogal mooy atte te kenn du wax kenn du ŋaa kenn du ñeppi lu dut moom kon loolu lañ ñëwoon tey di ko waxtaanee ala kulli xaalin eh, ñu ngi ñaan yàlla suñ borom defal ñu tawféex bu baax a baax a baax eh, lépp nag loo xam ne jub na ci wax ji nañ xam ne nag ci kàttanu suñu borom la aju moom la neex mu jub waaye lépp nag loo xam ne juum na ko nañ xam ne matadik doomu aadama la ndax doomu aadama dafa matadi wasalaamu aleykum ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله رب العالمين